wa saxbihi dawi nawalil wali laqil lisaani waxlulan minhu lmuqad wajcalhu dakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rachida wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaan alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 ànd ci a gëm yàlla te xam ne suñ borom moo ko ko rëddal te it dana ko ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa waxoon ne law annabna aadama haraba min risqihi kama yahrabu min al mawt la adrakuhu risquhu kama yudrikuhu mawt bu fekkoon ne doomu aadama day daw wërsëgam ni muy dawee ak deeyam it du tee wërsëgam dana ko jot ni ko deeyam di jote loolu nag dañ koy delloo sax ci alquranul karim ndax suñu borom lépp lu wax ci alquran dana ko def te it moo wax ne aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada fu ngeen mën a nekk donte da ngeen nekk ci pale yi yi ñu gën a sécuriser ci àdduna yi dee moom dana dugg fekk leen fa jël leen te ña leen di wattu sax ak aar duñ gis dee waxaat ne qul innal mawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum kat bu ngeen koy daw day mel ni lu leen wut si ngeen di ko gàttandoo ak xel rëy kon yaakaar naa loolu day gën a yombal te gën a gaawal tase gi loolu day war a ne kon dee mëne su ko daw dee nag mooy li nga xam ne nii jullit yeeg yéefar yeeg ñi gëmut daraak ñi amut diineeg ñëpp ko gëm ñëpp gëm dee xanaa kay ñenn ñi dañoo gëmut dekki wala dañoo yaakaar ne ku dee rek sañ mbir fa lay yem waaye jëmmi dee moom mooy loo xam ne nii kenn weddiwu ko naka noonu it noonu la waxee ci alquran wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala risquha yàlla moo gàddu wërsëgu lépp luy noyyi ci kaw suuf moo tax Sëriñ Tuuba nee na moom bi mu gisee li yàlla gàddul boppam ak lim ñu gàll te gàddulu ko kenn ca la xam ne yàlla kat aw du booy moo tax ma dem ca lam la nga xam ne ne gàddulu ko kenn muy wa ma xalaqatul jinna wal insa illa liya'budun moo tax sëriñ bay jaxat sax ñaari aay yooyu am na nu ko firee ci way wu gàtt di wax ne xamal na yàlla danoo yen lëf yenul nu lëfit ak topp moom la nu yen yi moo ko yenu dëgg la nag sàkku wërsëg moom mënta ñàkk ndax ndigal la ay sabab la ndax sun borom moo wax ne famshu fi manakibiha wa kulu min risqi waxaat ne fa isa xudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah waaye loolu it gaa yu baax yi dañ koy def ngir dugal ko ci ndigali suñu borom yi te luñ ca amee itam dañ koy dellowaat yàlla moo tax am na ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam bàyyi ak gileemam yonent bi ne ko yeewal sa gileem gi mu ne ko dénk naa ko yàlla mu ne ko yeewal sa gileem gi ba noppi doog ko dénk yàlla ne ko nag at tawakkulu xaali wala iktisaabu sunnati fa man daxufa an xaali fala yadxuf an sunnati wàkkil yàlla sama mbir bàyyi ko sama lépp de mooy sama mbir Euh, waaye nag sama sunna mooy sabab yi kon képp koo xam ne ni sama mbir lot nga ci rek waaye bul lottu ci topp sama sunna am na woykat bu wax sax ne dail maqadir tajri fi ahinnatiha wala tanaamanna illa xaaliyal baali maa bayna xamdati aynin wa intibahatiha <clears throat> yuxayiru llahu min xaalin ila xaal bàyyil ndigal yàlla yi ñuy doxee ni leen yàlla digale te yow nga ànd ak xel mu dal boo tëddee dal nanga nga nelaw ndax diggante xef ak xippi rek suñu borom mën na cee soppi mbir yóbbu ko ci mbir mu sore moo tax léeg nga gis nit ñi gis kenn ku leen bett ci wër sak ñu naan barki démb rek la fi nekkoon di jaanaatu wala mu may leb nangam maa ko fi luye woon barki démb nangam nangam moom moom fu mu jëlee alalam ji te dañoo xamul ne yàlla diggante xef ak xippi mën na cee soppi mbirum nit te yàlla rek moo fiy def. moo tax sëñ Bay Jaxate day wax ne nanga sukkandikoo yàlla ci wërsëg yi te sam xel dal te xam ne lépp loo xam ne ne lu jógee fa yàlla la moo la koy defal mel mbindeef moo la ko mën a xañ amut moo tax mu naan pexem yàlla moo gën pexem nit ndaxam fa yàllay fexe yàq kat yeggu fa fa yàllay fexee raw na bët raw na xel fa muy yokkee nit ay bañam xandu fa fa yàllay fexeel la laram yi wuurëy du diisoo da koy def ñu xëy gis ko fa fa yàllay fexeel fa yàlla yi fexee lar fa yàlla yi faleeb lar ña koy bañ yegul ba muy fa fa muy séddale ku bon nekku fa la seytaane ak nit di tee am dafay lu tik lu tukkee fa nit nag te say bañ ne fa lu tukkee ci yónneen ba ak yàlla jëm ci yow loola day ñëw ku bon ci yónneen ba jëm ci yow loola day ñëw ku bañ randu fa ku yor sa yëf it faaw day mujj ñëw te naa lii ma yor foog ko jël sa yëfa na sam xel di dal yow sa xol sedd nag sa wërsëg lu nit fab fabit ër ko fa lu nit rëy rëyub cër du yóbbaale kat cërum nit cërum nit ku bëggit ba fa dagaanal xereg dëddu ak itte yow te wut nag kerug doylu far yendu fa kerug doylu moo fegal naaju lor seral sab xol ak saw yaram yendu fa tebul bul jàq bul rët ngiruk yàqkat fa mbir yey bawoo yàqkat yeggu fa te bul jàq ngirub yàqkat fa mbir yey bawoo yàqkat yeggu fa moo tax day wax ne euh, la jot nga jot ca te loo xam ne jot ca jotul doo daw ba jot ca bàyyil ji moo jot kon nag nañ mm, sàkku wërsëg baax na mënta ñàkk waaye nañ ci ànd xel mu dal ak njort lu rafet te xam ne sunu borom lépp loo xam ne ni sunu wërsëg la dana nu ko jox ci àdduna sëriñ Tuubaa nag daana wax ne eh, eh, sëriñ Tuubaa daana wax ne rafet diine ak ngor day rafetal aw wutin waaye du xañe wërsëg dal ne ñàkk diine ak ñàkk ngor day ñaawal wutin waaye du tax a jot ci loolu sa wërsëg kon nag loolu lu mat a bàyyi xel la